boo buggee am koor bu mat nga yëg tamit dëgg-dëgg koor na nga xër ci sunnay koor bokk na ci xëdd ci mujjanteelu guddi bi doonte ndox mi ngay naan la yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne xëdd lekk bu barkel bu leen ko bàyyi doonte ndox mi ngay naan la ngir yàlla ak malaaka yi du ñuy julli ci ñuy xëdd ak gaaw a dog ànd ak nodd bi ci ay tàndarma yu tooy walla yu wow boo ko mënut nga daldi guux ndox comme nu mu dikkee ci xadis ñaan tamit ci jamono bi ngay dog nga wax dhahaba zama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru incha allah ak dogloo tamit ña wooroon ngir dikk na ci xadis yonente mu ne képp ku dogloo ki woor dana am payoorub ka woor te du wàññi ci kële payooram dara ak umra ci biir kor yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne umra ci koor dafay tolloog aj aji koor na soxlaal boppam ci bëccëgub koor ci ñaan ak jàng alquran ak yeneen xeetu jaamu yàlla koor occasion la ngir dëgëral sa ngëm yàlla amee ci aljanna muccee ci safara yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne suufe na perte na ka nga xamante ne koor ñëw na ba génn te kenn jéggalu ko